jàmm ji info point net et divertir dans la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 booru Brioche ba eh, ci noonee nag waa ji ne ko fii nga jaar waroo fee jaar man maa fi war a aw moom it tam mu ne foofu mooy yoonam te foofu lay aw ndax day doxi ji soxlaam eh, ci la werante daal di am rek waaja daal di dem ubbi otoom jël fa ponkalub paaka daal di rek jam ko ca faaru càmmoñ ba ba mu egg ca xol ba ci noonee la daal di tëroo rek ñàkk bàkkanam askan wa fa yeewoon nag doon addu jëmale ci li ndax ñoom ñooñu nag nee nañu dañoo sonn ndax nag foofee mbon mbon ya fay am ma ngay bëgg a bëri ndax rek ndaw ya fa yeewoo dëkk ca boobale diwaan ñoom ñoo fay tuxi yamba fóoni euh, Sénébar ak yeneen yi ni ñoom nag ñu jàpp ne seeni kaaraange dafa des lool ñoom waa Ouest Foire ndax ñoom rek ña ngay xamle ne nag boobu gendarmerie di mu di poste phare boobee eh, rek doyu fa dafa jot nag ñu daal di leen utal ab poste police ndax jàpp nañ ni loolu moom moo nekk seen sécurité ñu àddu ci leneen wax itam ci mbiru Cheikh Niass ci fàttali moom nag mu amoon jafe-jafe ak benn takk der ci noonee rek lañ ko daal di defeere ca Cap Manuel mu daal di ñàkk bakkanam eh, ci noonee nag ab njabootam xëy nañu tey nag daal di àddu jëmale ci mbir mi nel wax jëmale eh, ci mbir mi ni mel waaye daal feeya na mu demee ndax rek suñu sukkandikoo ci kàddu yi nga xamante ni euh, taawam bu ba yëkkati na ko nee na nag ñoom la ñu jote rek bokk na ca euh, ki nga xamante ni moom moo di bàyyam ba dafa daal di jaar rek ci ab yoon ci noonee la ko takk der bi daal di arrêté laaj ko nag li nga xam ne euh, moom moo di carte mu daal di xool nag gis ni nekkul ca oto ba mu demandé ko ni ko dama koo fàtte waaye itam daal di wax ni doomu bu góor bi na ko dem jëli ci noonee la ñu daal di nekk di werante moom ak takk der bi ñu jàpp ni rek nag am na ay fekkante na fa euh, ci noonee la doom ji ñëwee rek ki nga xam ne moom moo di takk der bi daal ni ko topp ma euh, ca euh, police ba ci noonee la ko toppee ñu daal di ko fay dëj ci dëj boobee nag lu tolloog juróom juróomi fan lañ ko daal di déféré ca Cap Manuel doom ja nag nee na la wax rek bokk na ca dafa bëri ay rumeur yoo xam ne ñi ngi koy dégg ndax nee na rek ñii ñi ngi naan dañ koo daal di piqûre mu daal di ñàkk bakkanam ñii tamit di wax ni dañu koo daal di dóor ay dóor yi métti ba loolee moo waral mu daal sàkku rek moo di ñu jox leen seen corps ñu daal di koy denc euh, buñ ca noppee nag daal di ut pool avocat mu daal di leen di layool bu ko defee ñu xam ana euh, dëgg ba fan la féete Euh, ba tey rek euh, ci wàllu actualité dañuy daal di dem rek fële nga xamante ni moom moo di euh, départe moo di Casamance daal di dem nag ca département bu ñu woowee Ngoudoump foofu nag ab député buy wuyoo ci tur Mariam Ndiaye kamara moom moo fa daal di ñàkk bakkanam ñu ne nag la ko yóbbu bokk na ca ab feebar boo xamante ni daf koo tëdd lu yàgg rek moo ko daal di yóbbu moom nag mu ngi ñàkkee bakkanam fii ci Ndakaaru ci hôpital principal ñu koy ñaanal yàlla suñu borom jéggal ko ay rëcc fu fi mu uh, jóge uh, ba tey rek ñu daal di wëyal xibaar yi bi la yoon nag ñu daal di dem si Birima Ndiaye ak kàddu ya mu yëkkati doon wax nag ci mbirum politique uh, moom nag la may wax bokk na ci li nga xam ne moom la xam rek ci Khalifa Sall ndax nee na Khalifa Sall kenn gënu koo am xam ci wàllu politique waaye gis na ni bu jiitalee ki nga xamante ni moom moo di xam Wade mi mu di njiital njiital li nga xamante ni moom moo di mairie bu Ndakaar moom jàpp na ni bu ko jiitalee rek dana am dara waaye nag bu jiitalee lëkkale ki nga xamante ne moom moo di Barthélemy Diaz euh, jàpp na ni euh, dafay euh, ci wàllu politique mooy maanaam dafay daal di jeexal tàkk moom Birima ba tey ma ngay àddu rek bi la yoon nag moom ca la mu wax rek bokk na ci ñaari député yi nga xam ne dañ leen di tudd ci njuuj njaaj passeport diplomatique li nga xam ne moom moo di visa ak ay faux mariage moom Birima la muy xamle rek bokk na ci nee na mbir moom nga xamante ni dañ koy jël di ko ŋawti ŋawtee dafa daal di doy sëkk ndax ñoom nag sénégalais li ñu bëgg bokk na ci rek ñu jàppal ne leen ràpp ci kaso bi te mbir mi euh, mi ngi ci loxoli yoon moom nag lam ci doon xamle nag bokk na ni enquête ba ma ngay woy ba tey euh, ndax jamono ji ñu toll ba tey ña ngay woo nit euh, di leen déglu ngir nag ñu xool ana mbir ma fan lay mujje kon police ma ngay def liggéeyam bu ca noppee nag daf koy daal di jébbal procureur procureur mooy xool ba xam nag ñoom ñaari député yooyu ñuy tudd seeni tur ma nga ca bu ca nekkee ci la lalli seen mbaraanub kiirlaay waaye bu ci amut duñ ko wax moom nag lam ci xam ne bokk na ci président Macky Sall mi nga xam ne dañ koy tudd naan dafay protéger ñaar ñooñee loolee euh, dara amu ci nañu ko euh, bàyyi ñu àddu ci leneen wax itam euh, ci doomub Sénégal bi nga xamante ni moom moo nekk ca réewu France muy wuyoo ci turu Mariam Diawara ci fàttali moom nag ay nataalam fës na lool ci réseau sociaux yi bu baax a baax ndax rek saa su ne dafay fësal rek valeuru Sénégal waaye itam di wax ay baax baaxi Sénégal moom moomee Mariam Diawara

moo daal di bokk rek ci ab concours bu mag ñu koy woowee Miss France Internationale 2021 euh, moom moomee nag Mariam Diawara daf cee daal di bokk rek mu di euh, doomu Sénégal euh, képp koo xam ne rek bëgg nga koo jàppale ci boobule concours ndax nag taaru rek du tax nga gañe ko waaye tamit ab vote ciy daal di bokk kon képp koo xam ne bëgg ngaa jàppale doomu Sénégal boobu ngir mu daal di rek yëkkati yëkkatiwaat drapeau Sénégal da ngay daal di def Miss 2 daal di def 71 717 ba tey rek ñu daal di wéyal xibaar yi bi la yoon nag ñu daal di ubbi weneen dupp xët rek mu di tàggat yaram Euh, bi la yoon nag coupe Sénégal 2021 président Macky Sall yëkkati lu tolloog 50 ci ay millions euh, mën ngeen a jàpp ne rek ndaje boobu dina bokk ci diggante Casa Sport euh, bu soo ak li nga xamante ne moom moo di jàmbaar bu Saly président Macky Sall daal di tekk 50 millions jàpp leen ne rek ku ko gagné di nga am lu tolloog fanweer ci ay millions ku ko perte di nga am ñaar fukk ci ay millions ba tey rek ñu daal di desati li nga xamante ni moom moo di tàggat yaram bi bi la nag ñu daal di dem ci diggante Balla Gaye Gueye 2 ak Bombardier jàpp leen ni niki nag la 28 novembre bi la waroon am waaye rek dañ ko daal di puusandi ba le 1er janvier 2022 li ko waral bokk na ci ki nga xamante ni moom moo nekk waajurub Balla gay numéro 2 bu góor dafa daal di ñàkk bakkanam mu di Double loole loolee waral nag ñu daal di puusandi boobule combat ba at bii di ñëw mu di le 1er janvier 2022 mbokki jërë ngeen jëf lii moo nekkoon xibaar bu tàbbi woon ci ñun te ñu doon leen ko jottali sant ngërëm